maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan ci invitation bi. merci di wax rek ni tey ji toogoon naa lu yàgg nag. Mhm. dégg nga doon observé. waaw waaw li ma doon xool nag tey ji dama buggoon rek partage ko ak euh, sénégalais yi ak askan yi. dégg nga ndaxte réew mi dafa toll foo xamee ne. Mhm. depuis euh, dafa am ay euh, situation yoo xam ne suñ borom daf ñu ci woon ay jàngat mhm. jàngat yooyu ñu koy wax di ko wax ba tey ji nag ñu daal di yegg si yegg seeguñ ci cëppaandaw bi mais tey temps tey fi ñu toll nii mbir mi dafa gën a euh, euh, jaxasoo gën a jéggi dayo gën a tiitalaate te bugguma aussi ñu daal di teg ci réew mi ay psychose c'est loolu moo tax xam naa ñaari ponk bokk na ci li nga xam ne lu gën a soxal askan bi la mais soxal également nit ñi mooy lu jëm ci wàllu insécurité bi am tey ci anam yi ñuy fàtte ni ñi xaw a doy waar lool. mais également maa ngi lay wax sànq analyste politique bi ndax li ci dégg sànq nga expliqué ak ma yàgg seetaan ci say ci say waxtaan. bari na loolu lu jaxasoo ci làmmu politique bi ponk bu njëkk bi ñu fas yéene waxtaanee mooy tey yaa ngi suivre actualité yaa ngi seetaan yaa ngi gis. noo gisee anam bi nga xam ne moom la société sénégalaise mel tey ak fan bakkan yi ni mu jéggi dayoo ba yegg ci loolu. waaw dinaa kontaan ci tontu ci sa laaj bi ndaxte soo xoolee ne eh, bi fi ñoom sengoor nekkee ba léegi. Mhm. Eh, keroog ba Senghor eh, bañ a gracier Moustapha Lo. Mhm. yéen fekkewu leen ko waaye dafa defoon toole parce que dañ soogoon na presque dégg que ni rey nañu nit mhm. bu lu Demba Diop aussi nekkoon loo xamee ne bu ñu déggee rey rek dafay nekk lu fees ci suñu bopp mhm. àddina bi di dox di dox di dox di dox ba mille neuf ba deux mille dix neuf mhm. ñu daal di gis ne suñu borom nag commencé di ñu euh, won war a mun a toog au niveau comportemental au niveau religieux au niveau social au niveau euh, institutionnel mm-hmm. ñu war a toog dégg nga daal di réorganiser waat suñu société mm-hmm. euh, yaraat xale yi euh, defaraat composition familiale bi nga xamee ni moo ñu war a mun a may pour que ñu mun a avancer mm-hmm. ñu daal di toog rek di dénoncer euh, di def diagnostic waaye solution du génn ci wàllu politique bi nag ba tey jii ñu gis ne euh, li fi sengoor bàyyi woon Abdou Diouf xaw ko fi def. Mhm. dégg nga bi fi. Wade ñëwee sax dégg nga yëfu cuuni moo gën a bari ndax dañu jël euh, n'importe quoi n'importe qui jaxasi yëpp. daal di def benn genre njambaan boo xamee ni euh, da ngay xëy benn suba ñu daal di ne la bon man maa war a yore réew mi parce que man suma maam moo nekk fii wala man maa war a yore réew mi parce que jàngu naa école wala jànguma école donc yooyu yëpp ñuy gis ne ñi nga xamee ne ñoo war a euh, ñoo daan toog démb leen di jox leen may di leen defal di euh, ñu daal di gis ni ñenn ñi dañuy jékki-jékki rek génn benn oto boo xamee ne duñu xam oto bi ñaare oto buy jar ay ay millions. Mm-hmm. di jékki-jékki ñu daal di ne non xëy na loolu yëpp xëy na blanchiment moo koy indee kii yeegi mel noonu fekk du lool. Mm-hmm. fekk mbir mi. dafa nekk ni affaire bi dafa jeng. affaire gis nga boo xoolee waxtu bi may wax ak yow ni mm-hmm. politiciens yi ngay dégg yëpp ñuy wax ku ci nekk yaa ngi bëgg a taxaw ne sama loxo dafa set. loxo bu set rek la ngay dégg ñuy wax. d'accord pour mun a am légitimité au niveau des population mais ñi war a am ñu ndóol ñu ngi continuer di ndóol ñi war nga ngay gis ko xamee ne seen waa kër dañ ndóoloon nga jékki-jékki rek gis ne ñoo ñuy tabax étage tabax ay kii waa ji bu la rombee sax pour mu nuyu la c'est à peine yooyu moo indi. li nga xamee ne mooy def que ne euh, ak violence bi nga xamee ne ay sport de combat yi nga xamee ne moom la ñuy indi nga gis. Euh, di ko seetaan di ko seetaan yooyu yëpp di indi ay euh, comportement yoo xamee ne ak ay refoulement yoo xamee ne dafa nekk au niveau de la jeunesse au niveau des gens au niveau de jàmbat bi au niveau de jafe-jafe yi nga xamee ni moom la ñuy kii moom mu explosé d'un seul coup nii daal di ñëw nag taxaw plus aussi. d'accord man suñu borom. Mhm. Euh, dafa ba mu bindee adduna bi ba pare. dafa bind biddéew yi. Mhm. ba mu bindee biddéew yi mu am ci biddéew yoo xamee ne dañu yéex. Mhm. am biddéew yoo xamee ne loolu yëpp mu ci alxuraan képp koo xamee ne bëgg na boo demee ci ci biir alxuraan bi li may wax nii dina ko fa mu bind biddéew yi daal di ne. li àddina bi li li li asamaan si di rëy yëpp mhm. ñaari biddéew kott ngeen ci mun a ngeen ci mun a euh, calculer mhm. ñu ne ko ban ak ban la mu daal jant bi ak weer bi boo gisee euh, mu waxati aussi que ni ma tàqale asamaan ak suuf ba ma ko tàqalee dama def pour que ngeen mun a yàgg ci kaw suuf mhm. ma daal di jël li nga xamee ni moo di dund bi nooyi bi mu jël ko def ko ci ndox. Mhm. xam naa ne émission bi du mun a. Euh, beneen émission dinaa expliquer. Euh, naka la phénomène yooyu di demee ba ci ñëw ci reproduction yi nga xamee ni Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam doon na ko wax ak mel noonu. donc noonu nga gisee jant bi di am ay influence parce que soo gisee par exemple nga nekk sa biir kër. Mhm. nga feebar ñu tëj la ci nekk da ngay jékki-jékki rek. ñu daal di ne ubbi leen ubbi leen pour mu feex euh, mhm. bu ñu ubbee bu rayon solaire yi ñëwee rek nga daal di gis mu daal di am régénérescence nga daal di commencé waat di dundaat commencé waat yi nga xamee ni ñu ngi doon nekk di kii yooyu ubbeeku mhm. bu fekkee ni gis nga euh, bu jant bi ak weer wi jàkkaarloo nga daal di gis ñoom la ñuy wax tubaab di ko wax pleine lune wala nouvelle lune jant bi day bay génnaat ñu koy wër noonu naan kii génn na wala génnul waxtu yooyu yëpp dafa am ay phénomènes yoo xamee ne dafay nekk ci suñu dund ak suñu comportement ci suñu kaw yaram. effectivement léegi ci ci côté boobu. Mm-hmm. est-ce que dafa bokk ci lii influencer comportement psychologique bu nit ñi ba ñuy def yenn jëfin yu bon yi mais comment expliquer également façon bi ñu amalee meurtre yi parfois te mu xaw a nekk loo xam ne lu sanglante lay nekk lan mu ko expliquer. li ko expliquer moo di que ni ci biir biddéew yooyu ma lay wax ne la dafa am yu yéex. am yu gaaw daf ci am yoo xamee ne biddéew yu yéex yi daf ci am yoo xamee ne bu ñu taxawee fa ñu taxaw dinañ fa def lu toll ci fukki at ak ñett wala ñu def fa lu toll ci euh, vingt trois ans wala ñu def daal di fa toll ci trente deux ans mm-hmm. donc fi ñu toll nii mm-hmm. euh, dafa am benn euh, biddéew boo xamee ne ñu ngi koy ci tubaab ñu ngi koy tuddee Uranus mm-hmm. boobu caractéristique am moo di que ni lépp loolu li lay jaaxal ba nga muy poser question noonu moom influence boobu lay def d'accord nga xam ne da ngay jékki-jékki ñu daal di ne nit saaga ne yaayam nga ne asbunallah changement de mentalité changement de dafay dafay agir dafay agir ci comportement nit ñi ci électrique électricité nit ñi ak ci émotivité nit ñi ak naa d'adrénaline yi nga xam ne ni boo boo exemple bu simple Mhm. moo di que ni bu pleine lune amee. Mhm. wala nouvelle lune. wala mu am éclipse rek nga daal di gis am bu embouteillage di gën a bare nga daal di gis jigéen ñi ñu lay wax sax ne la bu duñ la conseiller pour que nga daal di dem defe ji ay opération chirurgicale ndaxte euh, dafay am un taux de globule rouge globule blanc bu augmenté deret bi dafay gën a bare jigéen ñi bu fekkee ne dafa fekkee ci période de faute da gis deret bi day gën bare. est-ce que c'est pour seen bopp ci moment yoo xam ne. ce n'était pas le bon moment pour de exposer wu ce qui fait que parfois seen mentalité di am benn changement bi non non non c'est-à-dire que kii élément yi dañu bare mhm. benn bi dafa bokk ci li nga xamee ne moom la ñuy wax ndóol gi benn bi dafa bokk ci li nga xamee ne moo di euh, ni institution yi ak ni politique yi doxee ak royukaay yi xam nga politicien ak éducation ak éducation bi xam nga boo nekkee royukaay nga taxaw dégg nga daal di ne mais Macky Sall ma kii ma ko kii yooyu wax wax wax ba bëgg a dee. Mm-hmm. te dara fekkoo la ci. Mm-hmm. nga toog dégg nga ni di ne de toutes les façons suma liste suñ ko jëlul ma taal réew mi. Mm-hmm. xam nga yooyu yëpp. dafa bokk ci. nga gis influencé li nga xamee ni boo toogee euh, gaañi fii nga gis euh, pour deux cent cinquante mille francs ma yoreel la ko gis nga bu buñ lay fayeeku fii da amaguma ko xaaral ak yéeg di ma fay doo ma fay doo ma fay hmm. mu ak kii ba monté toole bi toole ba monte nga daal di jékki-jékki gis ni bu euh, làmb ji pare euh, ci biir ñu daal di ne yàlla pe suñu génnee nga gis agresseurs yi gën a bare est-ce que c'est pour dire que les Sénégalais ñoo exposé seen bopp désormais parce que nit ñi jàppee comme rayukaay nekkatuñu exemple du Sénégal rek c'est le monde entier du Sénégal rek parce que affaire bi dafa phénomène la boo xamee ne euh, dafa jóge dafa commencé Sénégal dem euh, laaw adduna bi ba daal di ñëwaat parce que moom dafa commencé yàlla toujours dafa commencé di ñu woon ay virus. Mhm. dafa commencé di ñu woon ay feebar jékki-jékki mu daal di jékki-jékki indi violence bi nga euh, bërki démb dégg nga Russie ak Ukraine nga gis violence yooyu ngay gis. yooyu gis ku ci nekk di def yëfu tey xam nga yëfu maa tey boobu mhm. dafa bokk ci li nga xamee ni euh, moom moo ñu dab te bam ñu dabee loolu nag moo tax ba fi ñu toll ni dootoo gis parent bu euh, euh, bu kii da ngay gis sëy yi sax mhm. damay wax toujours ku am ndogal waaw damay di wax toujours ñiy sëy na ngeen fexe ba sëy bi am ku ñu rus parce que sëy bi bu amee pour mu rus ki fakk gage la de longévité ndaxte ñaari way bay dencante yi suñu amee kenn ki nga xamee ne am la ñu ruus ci biir sëy bi mhm. ak ki nga xamee ne bu màttee ñu ne ko bàyyil mu bàyyi mhm. da ngay gis boobu yëpp ci affaire éducation bi la ndaxte ki nga jël mu jóge fële am éducation yow nga am sa éducation ngeen war a daje c'est difficile pour que ngeen mën a avancer effectivement waaw donc loolu ngay gis noonu yëpp jamono la boo xamee ni jamono de changement brusque jamono boo xamee ni phénomène boo mosu a gis da ngay jékki-jékki sax boo demee dans les pays africain nga daal di jékki-jékki gis koo xamee ni dafay séeg doomam mariage ak doomam dégg nga ñun mhm. ñii dégg euh, na ñu ngi koy gis sax di viol waaw su di viol su les viol ak yu mel noonu ba pare te da ngay gis que ne loolu yëpp dégg nga ba ci euh, nu mu te borom ñaari tur yi. dégg nga ñëw ba nga xamee ne buñ la koy wax sax léeg sax da ngay ragal a wax loolu wala ragal a ci maanaam ci société sénégalaise boo xamee ni da ngay waaru te aussi. Mm-hmm. te aussi ñu nekkoon un modèle ci wàllu diine. effectivement. modèle comportement également waaw comportement ak wàllu diine mm-hmm. mais léegi ñu ngi bàyyee ndakoo ba nga xamee ne euh, dafa am ay perturbateur ay euh, imposteur ay euh, nu mu tuddati ay saay-saay yoo xamee ni dañuy ñëw dekk ay objecteurs de conscience jaxase conscience nit ñi parce que du ñëpp ñoo am doole boo xamee ni ak fermeté bi nga xamee ni moom mooy ci gis nga affaire mm-hmm. homosexualité yi mm-hmm. du pour ñun ñoo tax ñu ñu ñu koy xeex ne du fi am. c'est pour les c'est pour suñu doom yi. l'avenir waaw parce que su ñu leen toogee di leen wax ne leen euh, entre góor ak jigéen le genre ça n'existe pas frontière ba jeex na ak yéegi mel noonu ñoom buñ fay yegg si boo waxee ñu ne euh, kooku affaire paa yi la woon ah affaire kii yeeg mel noonu. dépassé dépassé nañu ko dépassé nañu loolu. voilà ci benn côté également bëggoon naa nga expliquer ma ci ban degré de conscience. ban degré d'esprit moom la nit ki war a mën a toll ba di mën a faat doom aadama ci anam yoo xamante ni ku ko dégg di nga ne comment ça peut se surtout tey nit di ko jam une trente-sept fois ndax doyu waar trop ci psychologique nit non doyul waar parce que nit dafa nekk lu complex nit dafay toog di ngeen nekk di nga koy yóbbu ci yenn euh, situation yoo xamee ni dafay dem ba nga xamee ni tubaab daf koy tuddee il voit rouge bu demee ba gis rek lu mu gis yëpp de mbir mi dépassé ko mu mhm. am ay facteurs yoo xamee ne ñu ngi koy wax naan ko day dem ba nga xam ne dafay nekk dans un état second ñun sax bu ñëwee fii dañ lay wax ne booy xëy na moom dafa amee rek wala dafa xaw a dof xam nga buñ lay jugé di xool ndax euh, da nga nekkoon ci période de démence wala période boo xamee da ngay nekk état second mhm. xam nga da ngay jékki-jékki gis koo xamee ne dafa ñëw ne la nekkuma. Mhm. yooyu yëpp ce sont des choses yoo xamee ne et des phénomènes qui existent te loolu yëpp ce sont les agressions extérieures de la société ak euh, de l'environnement de l'individu moom mooy indi loolu nga xamee ne mooy indi nit ki dem a dem a dem a dem ba nga xamee ne rek dégg nga daal di yëkkati jaasi ñu ne ko déet dégg nga mu daal di kii am lu ko naan dóor ko ko am luy kii gi mel noonu yooyu yooyu yëpp euh, kii la mooy décuplé Euh, force nit ki moom la ñuy jóg des fois dem ba nga xam ne ni mujj gi dañ la naan c'est la folie ak psychiatrie naan la la folie ki yeeg yu mel noonu ainsi de suite mais ñun xam nañ ne euh, bu fekkee ne mhm. nit ki xëy na suba mhm. làmb poosam faj soxla balaa muy am violence dina yàgg te ci boobu il faut donc ñu interroger wala ñu delloo tuuti responsabilité benn côté les gouvernant maanaam état lan moo ci seen cër ci phénomène bi yëpp état bi seen problème moo di que ni ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey mosul am une politique boo xamee ne d'insertion une politique d'intégration des population dafay am toujours rek li nga xamee ni moom la ñuy wax comme bourse familial yi ñu daal di ne seen militants yi lañ koy jox pour bu ñuy wote ñu woteel leen te fii Sénégal xam nga benn nit la ñu woteel woteelu ñu benn programme donc amul benn programme boo xamee ni dañ ko délimiter dans le temps dégg nga nga xamee ni dañu euh, dañu naan euh, le programme la est de cinq ans ci diggante bi cinq ans bu ma daanoo boo ma ñëwee programme boobu dafa war a continuer ma améliorer ko wala ma yokk ko wala ma poursuivre ko mais da gis dañuy def programme bi kii dey def programme am ba taxaw bu paree ñu effacé ko recommencé waat à zéro dégg nga réternel recommencement daal di def que ni état bi toujours buñ leen waxee ne leen amu leen programme euh, da ngeen di taf yëngal làmbaatu waruñu frustré parce que c'est la vérité parce que c'est la vérité c'est la vérité ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci biti da ngay jóg ñu naan non nous a un programme duñ leen ko wax bu ñu duggee ba kii daal di ne bon euh, seen mbokk yi daal di jóg dégg nga yore affaire bi dugg ci biir euh, nu mu tudd ci euh, société bi ci biir nguur gi def dañ fay def suñ waxee ñu ne non mbokk président la le frère du président la sœur du de la femme du président va venir avec une petite note léegi affaire yi daal di kii corruption bi ni jàll dégg nga nga gis comme ni ma la wax ci sama début propos mhm. koo xamee ni da nga ko daan romb di ko may mille francs mu ñëw ne la yee grand da ngay waar am man kay temps yi daay gaara benn oto yow ngay lox di wax naan xëy na booy bi balaa muy dem sax di <laughs> dina yëkkati dara jox boobu mhm. du la war a mukk li xew malheureusement wax du mukk li xew mu am ñu infiltré suñ société bi Eh, comme borom ñaari tur yi eh, boroom lobby yi ñu eh, infiltré ba nga xamee ne léegi. man damay toog ba si ak sax daal di mais vraiment je regrette dem école parce que dem naa école ba amee naa ay diplôme mais léegi bu ma ne amee naa diplôme sax ñu xeelu ma gis nga éducation bi ni mel. Mm-hmm. ñiy jàngale. fay ñu xaalis boo ñu fayul xaalis kii fay nga ko xaalis kii fay nga ko xaalis gis nga phénomène yi nga xamee ni ñoom lañ mosul yàgg na fi mais gis nga dañu jékki-jékki rek mu feeñ mooy le bébé yooyu nga xamee ne santé bi ñu leen di euh, ni ñu leen di ëlëb ëlëbee ci biir kii beeg yooyu da ngay gis benn docteur benn professeur ñu naan la professeur la de telle neurologie machin des trucs comme ça mais pour nga gis ko c'est tout un problème bu taxawee foog dee mooy suma mooy patient yi nga xamee ne dañuy ñëw dégg nga nekk ci ay situation du ñu nekk ma daal dina leen boo demee ci sa docteur boobu wax ko ne ko moom dafay dee très bien léegi compte tenu tout ça y a un véritable problème mais jafe-jafe yi mu ngi wéy également nit ñi di ko subir mhm. qu'est-ce qui peut bien être la la, la solution la solution moo dikk que il faut que li ñuy bañ dégg ñu daal di ko def. moo di il faut que ñu toog ñu waxtaan. penco penco.